filet bi ñi ngi ko war a defee yi bu ngeen xoolee cœur de ville de Kaolack en face avenue boobu mooy avenue El Hadji Ibrahima Niass bu ngeen seetloo at yi passé ñi ngi ko doon defee ci route nationale bi en euh, en face euh, ancienne gouvernance mais dañu seetlu woon ne loolu su amee li mu daan indi ci gàllankoor li mu daan indi ci tolof tolof dafay bëri parce que Kaolack benn yoon la te booy seet Sénégal daanaka pour nga dugg si fi dëkk yi ñu seq yëpp yëpp yëpp booy seet dañuy jaar biir kaw la te benn yoon moo fi am. loolu moo taxoon ñu changé ko cette année yóbbu ko dëppi daaw yóbbu ko avenue euh, El Hadj Ibrahima Niass. Euh, ci wolof dinaa ne ñaari junni la. ak euh, juróom benn téeméer. ak ñeent fukk ak juróom-ñett. waaw civil ñoom ñooy défilé. militaires yi dina nekk ci euh, ñeenti téeméer ak euh, juróom-ñett fukk ak juróom ak juróom-ñett fukk ak ñaar. waaw waaw waaw wàccaay bi défilé bi maanaam euh, cérémonie bi li ciy ànd yëpp bu weesoo li ñu tuddee prise d'arme. bu loolu weesoo dina am tamit ñi nga xam ne xëy na réew mi lay wax ak armée ak ñeneen ñeneen dañ leen war a sargal maanaam takkal leen ay raaya. lolu lañ tuddé aussi euh, euh, une remise de décoration euh, dina am légui défilé manam maaj ci nima ko mëna waxé civili civil dinañ jall ba paré manam écolier groupement famille parce que fête la bo xamné du fête armée nit yi dañ yaakaar ne fête armée dong la mais fête nationale la